dikkati naa ana ñu ne woon Benno Bokk Yaakaar dee na suul nañ ko Sud Quotidien ne mukk Benno kay pare wun sax ngir faatu fa yàllaaxu Benno Bokk Yaakaar nee ñu dee duñu ko jege donte nag toroxal nañ leen fii ci Ndakaaru daal di leen di sëlëm suuf ca Jurbel daan leen ca yóbboo ci leen ardo ca Sigicoor Sud Quotidien ne ma El Hadji Amadou Kassé ministre conseiller xamle na ni ci ñeen fukk ak ñetti département fanweer ak ñaar Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné Vox Populi ne ma Benno Bokk Yaakaar kay nee ñu ndam la ñoo ko am nee fukk ak ñeent ci yi am ci réewum Sénégal fukk ya Benno Bokk Yaakaar moo ko contrôlé fukk ci capital régional ñoom ñoo ko gañe ñeent dong lañ ci ñàkk Yewwi Askan Wi ak Déthié Fall ne attention ñii nag ñi ngi ci yoonu sàcc élection yi source a xamle ni Benno Bokk Yaakaar kay dañuy déliré ñii nag dañoo mel ni ñu nelaw ba gént yeewu nag di wax la leen saf l'observateur ne ma ne Macky Sall moo war a jëli pexe ci lii Fatick fukk ak juróom-ñett ci ay commune la ñu ñàkk Matar ba ñu daal di ko yóbbu ca cour d'appel ca Malem Odar nguur gi daal di fay ñàkk commune ba ak département ba ñeent ci commune ci diwaanu Kaffrine Benno Bokk Yaakaar ñàkk na ko fii ci Ndakaaru jël Diop Sangomar moom jarta wax ñaar ci commune dong la si Benno Bokk Yaakaar gagné terewul l'observateur ne ma waa Benno Bokk Yaakaar nee ñu ñeent fukk ak ñetti département yi fanweer ak ñaar ñoo ca am ndam laas ne ma ña ngay yuuxu ndam de waaye Bamba Fall moom am na ndam ca Médina moo rawee Cheikh ba juróom-ñeenti téeméer ak fukk juróom-ñeenti baat critique yéene kaay ne ma Benno Bokk Yaakaar am na fu nu am ndamit ca Grand Dakar Jean Baptiste Diouf ak docteur Doudou Sène ñoo fa gagné ca Patte d'Oie jigéeni Pastef suul fa nag maire di Banda Tiwaawan Demba Diop si daal di raw ñëpp ca diwaanu Njaareem Daam Diop xamle na ni amul ndam kon bàyyee na ko Malick Sall Abdoulaye Seydou Sow ni ak lu ci mënti am bu doon ay élection présidentielle day ca tuur wu njëkk wala ñuy daal di jàll réew di jeen cay boobu ndam Benno Bokk Yaakaar nee ñu am nañu ndam waaye boobu ndam njum moom Cheikh Omar Anne dëbb na ko waaye yeewi askan wi banlieue bi la ñu daal di raatale ba mar day taali libération yéene kaay ne loo ci mënti waxit Benno Bokk Yaakaar ñi ngi ci guddi gu bër setagul lu metti li ñuy dund saa si tembe Tiwaawan moom ñàkk nañ ko leer na ñàkk nañu Tataguine Somone Bambey Kanel Kër Madiabel Kédougou Ginnaaw Rail Nord Thiaroye Gare Tivaouane Diacksao Diamaguène Sicap Mbao Jaxaay Parcelles Ribot Escale Koungheul Ndofane Thiaré Dia Sibassor Kahone Diébel Ndiédiène ca diwaanu Tëngéej moom Benno Bokk Yaakaar Libération ne ma dañu ko faa dóor ba muy toggi xewar ci Kër Massar juróom ci juróom benni commune Yewwi Askan Wi moo fa am ndam Momar Talla Gadiaga moo leen ca soowe ca Malika Racine Talla ca Wakhinane Nimzaat Cheikh Dieng ñàkk ji Kaw Ndiaga ña ngir ñàkk Thiaroye sur Mer buntu ñeenti commune ci ñetti ciy département maître ak Bassirou Diomaye Faye El Malick Ndiaye bu Pastef ñàkk ci seeni gox libération ne ma bennoo bokk yaakaar ba tey ma ngay xam le ni ñoo am ndam ci élection locale yi turbine ma bu leen diwaanu Thiès mburoog sooba wopp na ba ma nga ca koma Idrissa Seck ñàkk capital ba moog ñamu àndal waaye dara waralu ko yéen kaayub des médias ne lu dul transhumance ba nga xam ne gaa yi moom la ñu ba daal leen di fayee ñàkk xamal ca xombool day coalition gox bu bees moo fa am ndam ñoom ma booy lu toll ci ñaar fukk benn ci ay bureau de vote fukk juróomi ñoo ne ko furus am ca ndam ñu am na ñetti junni ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ciy baat bennoo bokk yaakaar am ñetti junni ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent ci ay baat kon coalition gox bu bees moo am ndam ca diiwaanu xombool l'enquête ko dajéene ci république bi day ña ñàkk bari nañ Abdoulaye Diouf Sarr ndakaaru bugguñu Amadou Xot yéggamatul boo moytul ci wàcc lay mujjee Omar Gueye porte parole boo xam ne wéeruwut fenn asom jaataa ñàkk goo xam teg l'indépendant ne ma maam booy jaawo day teggi na ndànk bi bi balde ci siisam yéeni kaay bi ne ma yeewi askan wi dóor bennoo bokk yaakaar ba ñu tërëf moom l'indépendant ba tey ne nga xam ne daanaka amoon nañ yaakaar ci ñoom ñoo ami ndam ñii ñoo ñàkk seeni gox Aliou Sall na Antoine Félix Diome Abdoulaye Diouf Sarr Aminata Assom Diatta Yankhoba Diattara ak Amadou Hott Gueule Tapée Fass Colobane moom candidat yeewi moo yóbbu Ousmane Ndoye retraite le témoin yéeni kaay ne yeewi askan wi wane yi bennoo bokk yaakaar daanaka seey doy na wàllu askan wi moom dem na bu doon référendum la mën nañ jàpp ni président Macky Sall ñàkk na l'évidence yéene kaay wax ji wax ji na ñu bàyyi xel gëm sa bopp ak Bougane Gueye Dany Macky Sall ci ndorteem 2009 ñaar ciy commune la gañe woon tey jii ndorteem 2022 gëm sa bopp am juróom benn ciy commune am nañ ndam ca Médina gëm sa bopp am ndam ca Rufisque Ouest am ndam ca Kousi ca Seme Kanta ca Sédhiou ca Saare Badji ca Kolda ca Djiddah Thiaroye Kaw l'exclusive yéene kaay ne ma moo day ma ngay xëccoo ville bu Rufisque moom gëm sa bopp ndax nag Alioune Mar am na ndam ca Rufisque Ouest leer na ca Rufisque Ville moo fa jël ndam la ak gëm sa bopp waaye ña ngi ko bëgg a foqati seen loxo jébbal ko Ismaïla Madior Fall l'évidence yéeni kaay nañu bàyyi xel Ahmed Aïdara yi de waa ci micro la tàmbalee teeri ci mairie le quotidien le quotidien ne Seydina Issa Samb day nee na faax ci mairie bu Yoff source a xamal ma ne nañu xool dëgg-dëgg lan moo tax président Macky Sall mi ñàkk le quotidien le quotidien ne ñàkk wax waaw ak day bokk na ci source a ne Macky daal moo samp ay candidat am yi wote contre candidat yooyee ñàkk gi ñàkk ma direct news ne ña ngay tamante de Gaston Mbengue ma nga yàq Kétembe Mahmoud Saleh Dakar Times ne lu élection yi dox dox bu leen fàtte ni coup d'état yaa ngi ci dénduk Afrique gannaaw Burkina Faso barki Dembo Ndiaye Abidjan ak Niamey nañu defaraat seen toogaay ndax gars yi mën na leen attaqué à Sport ne bu leen fàtte nit sunu gaynde yi tey la seen jongante huitième de finale suñu diggante Cap Vert lay doon waaye bu leen fàtte nit coronavirus mi ngi ci réew mi te day fàtt yéen leen ak jàpp tàggat yaram eh, dañu ko fës ne door gannaaw ba borom jam si teex Dugar tey jii dafa jël yoonu boppam ñu door ko Sénégal huitième de finale yi tey jii dafay jàkkaarloog cap ki nga xam ne nag mooy tàggat sunu gaynde eh, moom jot na caa yëkkati ay kàddu ci loolee sax eh, du ñàkk dañu ciy teewlu soxna Fall ma nga xam ne sekk na ci waxtaan ak kii di Aliou Cissé. mu namm lool ndam Sénégal war a assumer statuam ci kanamu Cap-Vert ngir am yaakaar dem ci quart de finale yi bii na occasion la ngir mu dàq jeexi jaaxa yépp xaar bi bari lool ci moom moo tax gaynde yu Sénégal yi war a génnee jeu bu ngande mise ci seen ay potentiel maanaam li nu mën tournoi dëggantaan bi nag day door ci Sénégal mu di rencontre bu am solo ngir dund équipe bi sélectionneur national bi Aliou Cissé waxoon na ni dina jooyanti te it fexe ba Sénégal wane xar dal bu nu sukkandikoo ci effectif bi mu am waaye tam individualité yi dañuy jàpp ni Sénégal am na place am ci Coupe d'Afrique des Nations bile mu des nag entraîneur bi daal di proposer équipe boo xam ne dina mën a saisir opportunité yi te it di dugal ay but ñàkk teewuk Cheikh Kouyaté nga xam ne dañ ko suspendre tax na ñu am yaakaar Pape Gueye ñu teg ko ci entrejeu bi. mu ngook jaajëf soxna Fall équipe ba ñu yebal foofee sa bafu sam dara du leen ump ci li nga xam ne moo di euh, jongante Sénégal ci kan bi keneen ka ñuy teew ay kàddoom moo di euh, Aliou Cissé moom mi nga xam ne mooy tàggat ci nu gaynde yi mu dikkaat ci suñu diggante ak euh, Cap Vert ndax xel ma ne sa ak ñu teewlu. bien travaillé nous avons bien nous avons vendredi euh, ça a été la la séance euh, la plus difficile en réalité de la on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire euh, deux séances euh, très très intéressantes. Donc euh, oui, euh, le Cap Vert, on, connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer. di jégalu baax ci kàllaamay nasaraan gi dégg ngeen ko moom Aliou Cissé mooy coach suñu gaynde yi di xam ne ne kon bu dee tàggatu rek def nañu ko kon nag jongante bi compétition la xel manees naas daal ñu ñuy xamal sànq Mantoulaye mi ngi jox information bi Ismaïla Sarr jamono ji mi ngi ndax euh, kii di Amadou Diagne Foseka di dem ca euh, Bafoussam. pour fekk di Lyon. xam naa dañ ci gën a ñëw ak tës. El Hadj Mouhamadou Mansour. ak Mantoulaye ci bu Cheikh mais mais mi ngi am njëriñ ci kaw ñu jàll d' abord. parce que Ismaïla Sarr mënul football match bi. Euh, oui oui oui manqué woon na quand même ci dispositif surtout cadre équipe bi. Mhm. li ci gën a am solo très rapidement rek. mooy Aliou Cissé nag. vraiment war na mën a wane beneen xar kanam bu bees parce que bu mu tàmbalee avant CAN bi ba léegi la ko sénégalais yi di wax daanaka chaque jour da koy gën di dëggal il faudrait que nag wax dëgg yàlla ci yi moment yi nga xam ne dafa am solo mu di ne ku ñu dóor ku ne da ngay buub say bagage ñibbisi Nigéria ñibbi na Algérie ñibbi na keneen ak keneen ñibbi na donc Sénégal ak lu mu am ci effectif lu mu am ci euh, ay individualité am ko ci collectif tey c'est la moment pour que Aliou Cissé wane ne dalal xelu Sénégalais yi ne mën nañ jël coupe bi parce que équipe yi fi nekk c'est vrai que aujourd'hui toutes les nations se valent mais Sénégal am na ay potentialité yoo xam te ne nii normalement bu ko tegee warul mën a taxaw ak benn équipe. voilà euh, euh, Sénégal Cap-Vert Sénégal ak jongante ba fii ñu toll nii ba jàngat nga ciy def. ñetti jongante benn benn but boo xam ne tirage but la dalul xel ci euh, compétition africaine yi. Euh, mais toujours mën nañu dundee espoir ndax ñu nag euh, Algérie ñoo demoon final euh, te deux mille 2019 te Algérie moom toog na bu yàgg donc dafa mel ni ren CAN bi ak équipe bi ni ñu ko yokkee effective bi ñu yokk dafa mel ni chance ñu ndaw ñu soog a ñëw la quoi bon ñu ngi def percée bu am solo xëy na liñ leen liñ leen ko foogewul woon moo tax mais il faut moo waxee comme supporter la Sénégalais yi dañuy waxee <laughs> comme je ne sais pas trop football supporter yi li bëgg mooy gagner dugal donc bii moom dañ ko war di dugal ak quelque soit situation yi lu métti métti nañ dugal bii même bu ñuy gagné mais lan moo tax mënuñu ñu Cissé mënut am euh, tactique boo xam dafay dugal bii Aliou montre bi lay xool ak naan nii gis naa la teg teg baaraam ci bët bi nii montre bi nii léegi nag loolu itam nas palang ba ma dugale bii moo ñu daxal. <laughs> na bàyyi montre bi montre beeg bët bi. yoo xam nii nii nii ah? waaw boobu it nag dafay xaw a poser problème ah. <laughs> donc nag na bàyyi montre bi quoi dimbali ñu xool techniquement nu mu mën a xalaate planifier dugal génne pour dugal bi daal dugal wax naa man duma technicien football mais supporter la sénégalais yëpp li ñu bëgg mooy dugal bi parce que bi amul maslaa de dóor toog dóor toog xanaa nag dama foog ni suñuy wàllu histoire football fi ñuy jaar ak cap duñu euh, du cap moo ñu éliminé nag xanaa ci li ma foog. waaye Libye mos nañoo éliminer de. waaye Guinée équatoriale. li ñuy wane nii. Algérie mi nga xam ne moo gañe woon daa toog. toog na de Nigéria ñibbi na bëri. waaw même Libye doon yaa ngi fàttaliku Libye. ba ba mu ñu éliminé Guinée équatoriale. même gine ñibbi na. Guinée Conakry waaw non équipe gën a baax. ñu ngi ñu ngi daan ñu ngi dem. mais mais chance la pour Sénégal. non mais nag jom nañu Cap-Vert moom mënuñoo génne ci fi nag. Ah, waaw baax na <laughs> je ne pense pas nag. si ñëwaat ci émission bi. moom dinaa ko lissi xaar balaa balaa 11 ngi ànd ak euh, Amadou Diagne Fosika. xëy na mën gi moo gàncax gi moo gàncax gi si tës waaw waaw waaw après nañ ko jéem a jokk. waaw allah waaw mantu nee dina def le tout pour pour ñu jéem leen am daal. kal ko ci tës bi jaajëf waay. yàlla baax na rendez vous huit. Euh, yàlla baax na si tës 9h yàlla baax na ak 13h mën nañ la bàyyi nga dem cette fois si benn problème ayca ñu euh, wéye li nga xam ne mooy tàggat yaram gi euh, coupe d' bi ba tey des nations Gambie bi mooy guléet mu bokk ci jongante euh, coupe d' afrique kon nag jàll na ci quart de finale yi démb la Guinée benn bal ci dara mu mel ni it bii ba ka dugal moo di Moussa baru Cameroun moom jàll na ci huitième de finale yi gannaaw ba mu dóoree Comores ñaari bal ci benn mu mel ni les lions indomptables ñoom Cameroun googee dana jàkkaarloo Gambie si suy quart de finale ñu euh, desandi ba tey ci euh, kaan bi ak buuxante bu metti bu ñu wax ne moom moo am sa stade Olembe bu euh, Yaoundé buuxante bi mu ngi doxoon avant jongante Cameroun ak Comores ñeel huitième de finale yi nee nañ buuxante boobu nag la sa mujjantaloo moo di juróom-ñett ñi nga xam ne ñàkk dañu seen bakken juróom am benn xale bu toll ci juróom-benn yaat bu ñu sukkandikoo ceen ci ay témoins ak takkadeer yi nee nañu nag dañoo dem ba nit ñi ñu doon buuxante anta nañu leen ñu ubbi benn gri foofee dañ su bëri daanu confédération africaine de football bi génn naa bataaxal di xam ne ne kon nag foo ñu ubbi ci ab enquête te mu ngay des di jokkoo ak gouvernement bu euh, euh, Cameroun ñu jox leen euh, programme mu tey jii jongante yi huitième de finale yi bu 16 heures jotee Sénégal Cap-Vert ñooy laale 19 heures Maroc ak Malawi ëllëg ci mercredi bi yeneen jongante dana am 16 euh, bu jotee ëllëg ci mercredi bi Côte d'Ivoire ni ngeen ko euh, gisee dana jàkkaarloog Égypte 19h Mali euh, mooy jàkkaarloog Guinée équatoriale. ayca ni ñu koy defee rek ñu nit laata jongante bi di tàmbali di ngeen am euh, zoom kan président Lamine Gueye équipe am ñu def ak jàngat ci jongante bi waaye it bi jongante bu weesoo ñu def ak taxaw seetlu euh, ci jongante bi na mu mujjee ñu ñaan yàlla sunu gaynde am ndam ayca ñu jàll ci pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar yéen a kaay xëy fësal Rahmatoulaye ci bundooy